mooy tey jii dañoo nekk ci bërëb bi nga xam ne moom la ñu jàll ay yenn ay tuyaux yoo xam ne yi dañ koo jënd tuyaux yooyu dugg ci benn projet boo xam ne bii président la République moom moo ko amal pour dakaar maanaam yokk ni ndox mi nga xam ne moom mooy dugg ci kër yi yokk ndox mi nga xam ne moom mooy am léegi soo gisee ndox ñaar la mooy forage yi ñu koy produire wala usines yi waaye tamit ci canalisation yi muy aw kanalisation yi su fekkee ne eh, ñoŋu ñoŋu ñoŋuñu dafa am ndox mu bari moo xam ne dañ koy perte ci suuf donc tey jii usine bii nga xam ne eh, réseau bi nga xam ne moom la ñuy def mën nañoo wax ne li nga xam ne moom lay indi ci ndox boo xam ne bii dafa daan dugg ci suuf si ñu koy wax fuite te amatul soo ko méngalee mi ngi tolloo ak usine u ñiit muy quarante cinq mille mètres cubes jour yoo xam ne moom lay permettre ñu indi ko liñ ci jublu nag mooy bi ñuy def usine de dessalement dañ ne rek du ñu def usine pour euh, usine bi produire ndox di produire ndox ba pare ndox mi di dugg ci suuf si di seey loolu amul njariñ ñu boole ci benn pàcc boo xam ne bii mooy pàcc boo xam ne bii dañuy yeesalaat euh, juróom euh, dañuy yeesalaat donc ñetti téeméer ak fukk ak juróom benn kilomètre foo xam ne fii ndox mi moom lay aw ci tuyau nag yoo xam ne yu mag la ak tuyau yoo xam ne yu digg doom la loolu la ñuy def liggéey boobu commencé nañ ko déjà suñ ko doon euh, xayma su fekkee ne dafa nekk euh, ñetti pàcc lu jegeñ benn bi def nañ ko maanaam si les trois cent seize kilomètres quatre soixante dix a quatre def nañ ko. donc nag mu nekk liggéey boo xam ne bii dafa laaj euh, ay waxtaan yu bari ak ay lëkkaloo liggéey yu bari mooy lëkkaloo liggéeyu SONES bi nga xam ne moom moo yore liggéey bi. lëkkaloo ko ak liggéeyu euh, Sonatel boo xam ne bi dafa am ay réseau tamit ci suuf ak liggéeyu SONES ak Ageroute mi yore yoon yi ak CETUD ak ñeneen ak ñeneen donc looloo tax fi mu nekk nii li ñu xayma mooy euh, fin 2024 incha allah ci la chantier bi war a pare mu nekk chantier boo xam ne bii chantier bu am solo la mu nekk guléet ci Sénégal ñu jël lim bu toll noonu ci ay tuyaux pour bëgg ko changé waat waaye changé waat ko waaye yokku tamit ndox mi nga xam ne moom moo mën a ngaan ci biir parce que ñu ku nekk xam na ne dakaar li mu doomu aadama yi yokk na euh, euh, quartier yi nga xam ne da daan am euh, benn rez de léegi day am ay étage te loolu ay tuyaux yu mag yoo xam ne yi seen diamètre dafa mag moom mooy mën a indi ndox mi donc du yeesa yeesalaat rek yeesa laat la ba pare yokk tuyaux yi nga xam ne moom mooy ñëw di indi ndox mi fii su ñu ko mënee wax daal ne suñ ko xaajee ñetti xaaj presque yegg nañu ci benn xaaj bi li ñuy posé loolu li ñu ko may mooy commencé wuñu rek ci benn commune pour di ko def dañuy commencé pour ci plusieurs communes maanaam euh, ay ay bërëb yu bari foo xam ne fii rek nooy na mën nañ faa liggéey jamono boobu du indi jafe-jafe ñu dem liggéey fo foo xam ne fii par exemple day coordonné ak ay travaux yu AGEROUTE di def wala CETUD ñu dem def ko ànd def ko donc looloo tax du benn bërëb la la ñu nekk liggéey fi mu nekk nii lu mat ay juróom-ñaar wala fukki bërëb ñu ngi fa nekk di di di liggéey